man comme ni ma ko wax woon rek euh, euh, daaw avant sax ñu koy joxe waxoon naa leen ki ko mérité woon mais ren moom amul sax euh, sikki sàkka mën naa wax ni am naa lu ma métti tuuti parce que nga gañe nga bañ gañe da nga war a dem tey ji pour mu gënoon neex rek pour ñu rafetal gën rafetal victoire u jàmbur rek dañu waroon ñëw mais nag neex na ba pare comme ni mu koy wax rek mm, dëkk bu mel ne Sénégal même bu ñu gañawul Coupe d'Afrique encore te ñoo ngi si tànk yooyu même bu ñu ko gañawul doomu Sénégal yi tey jii ñoo ngi wanee Sénégal fépp fu nekk tey mën naa wax ni dama kontaan si suma rakk euh, li ma ko doon ñaanal at li ma ko waxoon Ghana bi mu koy euh, njëkk perte at Salah ma ni ko sawaay kii partout tard di nga ko amee mais nag je sais que ngi si tànk yi bul xaddi bul bàyyi. tey jii loolu lañ doon waxtaan léegi mu naa mu téye ma ni ma El Hadj merci li ma waxoon ma ni ko euh, kon nun niñ koy waxee rek wolof ku yàgg ku yàgg si teen bag fekk la fa et jeexagul nag ndax Sadio mën na ko gagné encore trois fois de suite voire quatre fois de suite encore am na ay yeneen jeunes yu ñu war a tamit bu ñu fàtte ni Crépin Diatta mën nekk ci yoon bi ndax te jii am na talent bu ñu fàtte ni am na yeneen xale yu nga xam ne tamit war nañ topp seen ay tànk adduna moom continuité rek la comme ni ma ko waxee rek ñoo ngi si gannaawam bu mu ragal dara boo amee ñoo xam dañ la jiite

dégg naa lu baax li muy wax ci man euh, Sénégal nag moo demee noonu bu ñu fàtte ni su ma toppal woon Jules François Bocandé mu may xelal li ma am tey jii duma ko am tey Sadio topp ma suba tamit keneen day topp Sadio continuité rek la comme euh, Sénégal ne ñëpp booloon ne bokk ndey bokk bàyyi xam ne lii rek ay dëgg tey kan moo gagné Sénégal moo gagné doomu Sénégal fan la jógee kenn xalaatul woon sax dina football ndax bi muy football métti woon na loolu muy raam di xeex tey ba àgg fi mu àgg pareil que pour moi et ñoo ngi wax ne doomu Sénégal yi gëm leen seen bopp ndax lii mooy Sénégal. mën nga mën nga judd do dara bo magge nek dara ndax gëm sa bop rek am solo ndax sunu drapeau gëm sa bop la wara tuddu d'abord du lenen gëm sa bop du ben nit du ñaari nit sénégalais mo wara gëm bopam ndax tay di yalla def ñu dimbalal ay affaire guerre ay affaire yu nga xamni yu bari ñun jaar kon nak ñun lenn rek lañ war xam liggéey ñak jëriñ